ami internet Diaspora News TV ginaaw bi ñu leen nuyoo di leen jaajëfal di rafetlu ànd bi ak ñun di leen dalal ci li gën a fës euh, ci xibaar yi dañu koy daal di door ak forum sur la paix njiitu réew Macky Sall mu ngi foofu ci diwaanu Paris ngir teewee forum sur la paix bi nga xamante ni jàpp nañ ko fukki fan ba fukki fan ak benn ci weeru novembre 2023 njiitu réewum Sénégal dina bokk ci ndaje moomu nga xam ni initiative bi mu ngi jógee ci président bu France Emmanuel Macron dinañ ca euh, gis euh, ci teewaayu chef d'état yu bari organisation ay chef d'état d'entreprise wala sax ay institution bancaire bokk na ci li ñuy xaarandi euh, ci ndaje moomu jëm ci wàllum enjeu ak paix euh, jëm ci sécurité ci wërngal ñu wax ci leneen lu ñeel xibaar yi baax Barthélemy Diaz moom itam mu ngi teewee fërëm bi nga xamante ne rek moo daal di jëm euh, ci africaine de l'investissement foofee ci diwaanu Marrakech ci teewaayu roi Mohammed VI forum boobu sax banque africaine de développement moo ko daal di initié mu nekk événement boo xam ne rek danañu ca euh, gis euh, chef d'état ak ay maire africaine danañu ko teewee ngir waxtaanee lu jëm ci wàllu mode de financement innovant mu nekk forum boo xam ne rek lañ ca mën a jàpp mën na indi ay yokkute jëm ci ville lii ngir xool naka la ñuy def ba gën a sukkali comme yi waaye itam ci lu ñeel financement ak itam lu gën a développé euh, continent Afrique yi ñu dem ci diwaanu Kédougou euh, conseil présidentiel lañ fay war a amal fukki fan ak euh, ñett jàpp fukki fan ak ñeent njiitu Sénégal danañu ko amal foofee ci noonu ki nga xamante ni rek mooy Ousmane Silla fas yéene naa mobiliser mbooloo mu takkoo takku ngir teertu njiitu réewum Sénégal Macky mi ñuy xaarandi ci conseil présidentiel bi amee foofu ca diwaanu diwaanu ci mobilisation ak ay stratégie yoo xamante rek ñoom jàpp nañ buñ ko dina indi euh, conseil présidentiel boobu ñu war a amee ca diwaanu dinañu xaarandi ci njiitu réewum Sénégal mu dalloo chantier itam amal fa di ay inauguration leneen lu ñeel xibaari mbokk yi ñu wax ci am cité de l'émergence ab fa am euh, ci site bi jëm euh, garage pompier jëm ci autoroute site de l'émergence bi ci mujjee am lu waral lakk-lakk boobu ay euh, dëkkuwaay yoo xamante ni rek baraag lañ ko daal di defaree moo fa daal di tàkk waaye ci xibaar yu ñu mujjee am amul benn dégât buy wane ni sax euh, am lakk-lakk boobu jur na foofu ay jëya yoo xamante ni rek mën na indi ay njeexital foofee ca gox boobu le ñu dem ci diwaanu Matam brigade d'hygiène Matam daal dina war a teeru huit agents yu bees yu ñu fa war a affecté si sous brigade yu nekk ci région ba ci mois bi ñu jëm bu ci APS ci kanamu procureur tribunal instance bu Matam ñu leen di xaarandi ci ay mission yu am am solo xol naka lañuy def bay saytu garab yu dugg ci gox bobu saytu karange gi ñeel ci walum set ak itam sensibilisation jëm ci hygiène waye itam gëna assurer contrôle sanitaire ci frontière poste yi ci village yi nekk ci digënté frontière Sénégal ak Mauritanie suñu sukkandiko ci capitaine Sow damu daal di xamle rek ni agent yooyu dinañ leen séddale ci brigade yu Matam Kanel ak Ranérou xibaaru bi ci réew la ca gëna fës mbokk yi ñu dem ci diwaanu Burkina Faso lu ëpp fukki nit rawatina ay jigéen ak ay xale euh, la ñu nemmeeku dañoo daal di ñàkk seen bakkan ci àllarba bi ñu génn ginnaaw ak expédition arme euh, ci village yu nekk ci région centre nord bi euh, ñi def loolu nag ba léegi kenn xamagu leen gouvernement bi ba tey defagu ci ab communiqué ñeel drame boobule xibaaru tàggat yaram mbokk yi la ca gën a fës équipe nationale bu Sénégal Aliou Cissé daal dina fësal liste vingt six joueurs internationaux sélectionnés jëm ci 2026 match yi un am ci Soudan du Sud ak équipe nationale du Sénégal waye itam match yi bi wara am ci équipe nationale du Sénégal ak Togo 18 novembre Sénégal wara a ak Soudan du Sud 21 novembre Sénégal dina ci jàkkaarloo ak Togo ci liste 26 joueurs yoy sax ñañu némé ko ci gardien yi bokku na ci Edouard Mendy Seny Dieng ci défenseur yi Abdoulaye Niakhité Ndiaye Kalidou Koulibaly ak Ismaïla Jacob ci milieu terrain bi ñu ci gëna a Pape Matar Cissé ak Nampelis Mendy eh, ci attaquant yi bokku nañ ci ñu wara bok ci jongante yoy Iliman Ndiaye eh, Sadio Mané ak Habib Diallo ñu wax ci xibaaru tàggat yaram batay ñu wax ci formation au niveau jëm ci infrastructure sportive eh, nomination yu bes yi nga xamanteni dal dinañ ko ci amal ci ministère des sports bi nga xamanteni don nañ amal conseil des ministres des sports la job dal di ci nday soppite yu bes Cheikh Tahirou Fall professeur éducation physique et sportive daal dinañ ko nommé directeur sport de haut niveau ministère des sports Cheikh Ibrahima Ibrahima Sarr ingénieur conception en génie civil dal di nañ ko nommé directeur infrastructure sportive ñu jéxalé ko ak coupe du monde U17 dal di nañ koy door Mali dal dina am victoire am bu njëkk ñetti bal ci dara Mamadou Doumbia ay atam tollu ci fukki at ak juroom ñaar Mom mo gëna de ci jonganté bobu ñu gën ko ci rañé Maroc itam daal dina am ndamam lu njëkk euh, ci kaw Panama euh, ñetti bal ci dara ñuy xaarandi euh, tay ji équipe nationale bu Sénégal wara a ak Argentine ñu leen di ñaanal ndam sant leen gërëm leen mbokk di leen jaajëfal ci ànd bi ak ñun ci Diaspora News TV lii moo fi gënoon a fës jëm ci xibaar yi jërë ngeen jëf